les patriotes maa leen di béggee di leen jaar bu baax mais man de dama xaw a jaaxle nag ci réew mii ñu nekk nag parce que réew mii nag wax dëgg yàlla ku jommiwul nag ah réew mii comme sabar gu tas Sénégal comme sabar gu tas scandale sur scandale Ahmed ñu ngi lay jaar bu baax scandale sur scandale guddeeg bëccëg mais ñun réew mi ñun fan lañ ñu bëgg a jëme ñi ñuy diriger fan la ñu bëgg a jëme Ibrahima ñu lay jaar di jaar ñëpp réew moo xamante ne passeport diplomate ñu leen neex lañ koy joxe ku leen neex lañ koy jox moto bu tëb sax ñun la am passeport diplomate escandale fi am yep ñi ngi xaar bo ba léegi procureur de la rue autosaisir mu tok fi mu tok japp njamburam ñi jéem raxas ay preuve bo ba di jéem divertir ni di ñu yóbbu di indi ay ñu ñu ay temps tànjaaw wak ay mbeje mbéjeeg ay mbojo mbojo gudeek mais ñun dañoo am ci combat bu ñu nekk mooy fexe réew mi salta yi fi nekk mbalit mi ñu bale leen wàqi suuf yi ba mu xóot suul ko état moom mun ñu ko amuñu ko moom très sincèrement mais réew mi passeport diplôme kenn gerte caaf bu lambu ci mbedd mi comme gerte caaf gu lambu ñu fiy dégg ay ay député di génn di menacer nit ñi ay ministre lu leen neex ñu koy wax Abdou mbaw mi ngi toog ci télé yi di wecci wecci Abdou mbaw ki ñi njëkk ci ñi ñiy dil ci passeport yi moom ci la bokk ñu xëy di ñu wax ay ah Bougane Gueye dañoo bloqué ay comptam Bougane Gueye bu yoree lay réew mi xaalis na ko fay dafa amel impôt réew mi impôt kenn mënu ko ko baal parce que waa réew mi ñoo ko moom ñun dañ dañuy faye impôt ñun bo jinde gerte caaf yaa ngi fay impôt bo jinde almet yaa ngi fay impôt kon bukan gay, bu yoree yorelee alalu réew mi na fay ay journaliste bu ñu nek di ñu fontoo di ñu indil ay xibaar ak ay ay comptam dañ ko bloqué ay victimisation bi ngeen di def ngeen wara tek gis nga Bougane mo leen leen ba duwok ci suñu xol yi mafia bi ngeen nekk nii Bougane mo leen a fexé fexé fexé fexe ba duggal ko suñu bir xol yi parce que ñun suñu xol yi ñu dëggu ñi lu dëgg rek mooy xaj seen xol gis nga nit bu dëggoo dëgg rek mooy xaj ci xolam ay kàcc la li ñu fi tegal ba ñu ko léere nii te am ay mbir yu bëri ñu ngi génn ah. nee nañ même Fatoumata Fatoumata Ndiaye mi nga xam ni moo nekkoon Fouta Tampi nee nañ bugaan sax moo dox diggante bi pour mu dem fekk ci Macky quoi. mais mafia bi nekk ci réew mi politico maraboutique moo war a dàkk ci réew mi. passeport diplomate mais Sénégal dafa mel ni xamuñu valeur bi quoi mais na comme xamuñu ay valeur milliard ba nit bu ñuy sàcc ay milliards ñun dañu defa ni mille francs la ñuy fooye quoi ñun bu ñu waxee dañu dañuy defa ni mille francs la ñu wax. ba tax réew mi ñu nekk ay nit di de détourner des centaines de milliards mais ñun dañu sonn dañu fatigué mais gis ngeen ndaw ñi fi fi fiñ fi ñu jëm moom fi réew mi jëm ñun ñëpp xam nañ ko fi ñu jëm moom parce que lii mënul continuer mënul jël sunu ay passeport diplomate di ko wesaare ci mbedd mi xawma ban tur laa ko mën a jox quoi ñu toog ay du Mbow nekk ci télé di fen Abdou Mbow nee na moom sénégalais ñoo ko fal ban sénégalais moo fal Abdou Mbow Macky Sall moo ko fal te Macky Sall du sénégalais yorul nationalité sénégalaise bañ na ko bu bureau de vote mu daan dem di voté dafa doon voté far force te amul carte d'identité réew mi fu mu jëm ñëpp xam nañ ni foog ñu joxe sunu kattan foog ñu joxe sunu doole réew mii raa kese kese kese moo ko mën a régler parce que lii mënul continuer te ñu ñëpp xam nañ lii mënul continuer ñu ngi naxante guddeeg bëccëg gis nga ay naxanteeg raayante yii nii taxul mbir mi jaar yoon. ay président ñu ngi lay ñaan ay na kilifa yi wax loolu réglé wul réew mii problème boobu loolu réglé wu ko te ñu sénégalais xam nañ ni loolu réglé wul problème bi ay nit ñu tekkiwul dara démb ak tey ñoo bëgg a toog suñu kaw ñun diñu imposer ñoom seen ay merde yu ñu yor diñu ko xëpp guddeeg bëccëg ñu naan nañ toog muñ ko nañ toog xaar nañ dem toog xaar bi mënul ne. te loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. maki Sall ba mu demee Touba xaw ma nit ñaa ngi dem politique loolu moom du ma ci sax sori. nee na fii combat amu fi waaw benn liste moo fi am euh, Benno Bokk Yaakaar d'accord jël leen benn liste mais Macky yow ba ngay dugg Touba nga war a xam ni yow nit ñi war nañ la ginnaaw président ñu ne ab président mooy ñëw ci ab ci ci dëkk yow boo yëgoon sax bàyyi nit ñi takk ay bande rouge taxaw ci tali bi ndax nga gis ay nit. ngay dugg ci ab dëkk yow nit ñi xool di dox seen soxla man ni ku gisul nit kuy romb. ta président nee nañ moom ma romb quoi président Sénégal nee nañ moo romb man moom doo sama président ngay romb nit ngi di doxi seeni soxla liggéenti wuñ la yëkkati wuñ la xool tàccu la xamuñu sax mi ngi romb ngeen bëgg fee toog di leere ñu gu guddeeg bëccëg gis nga réew mi nag foog ñu régler ko quoi réew mi foog ñu régler ko gis nga ndaw ñi fu lak fayda buñ ko amul sunu ay doom ay jaam lañ nar a doon ci réew mi ñu leen ni tek ay tank ak di leen liggéeyloo gratuit ak di leen fontoo guddeeg bëccëg duñ jang jang bu baax buñ fébaré duñ faju li dafa wara a ci réew mi ta dafa wara a nak ci ni wala ci né réew mo xamantani am mais passeport diplomate nan lañ ko mëna a jox nit jox ko ko rek parce que ya ma neex yow jox ko ko rek parce que nga fay 4 millions jox ko ko rek parce que ay mbokk lañ. passeport ah! man de laat ngi ñaan daal moom yàlla ko maamoom suñu saaliw ga mu fay du ko ñaanal gudd fan ak wér ah sama fan si gaaw leen ñëw na commentaire nag ah naa ba ñëpp amee diplôme daal dina ma ko wutal. waa dafa tànk yow yow jëru nga àggale dafa na dafa tànk. waa mais réew mi yéen sénégalais kan mooy kan mooy laxaat jaxate ba laxaat jaxate di jël ay passeport diplomate di ko séddale ay nit kan moo ciy laxaat jaxate. man ba mu juddoo ba léegi maa ngi doog a tur boobu sax laxaat jaxate ñu def ay vidéo di teg nit ñi di maye ay passeport diplomate jël alalu réew mi di ko séddale nu mu leen neexee. mais réew mi ñun réew mi est-ce que ñun nii lañ ko war a bàyyee ñun réew mi nii lañ ko war a ñun ndax réew mi dañoo war a bàyyi ay samba booy ñoo séquestré ñu jël suñu koom-koom sàcc dugal seen poos ne ñu ku yëngatu rey ku yëngatu duma ñun Sénégalais yi au ñu jël suñu ay responsabilité gis nga dund dund change la li tax ñu ñëw ci kaw suuf bii nii du neen yàlla bindul nit ci maali foro ñun dafa am mission boo xam te moo tax ñu ñëw ci kaw suuf sunu mission ci kaw suuf ginnaaw jaamu yàlla mooy defar suuf ni ku nekk fa nga dëkk da nga war a fexe mu ñoŋ jag dañoo war a fexe dëkk fa nga dëkk mu ñoŋ mu jag mais ngeen yaakaar ni réewu nasaraan sii di développé ngeen yaakaar ni suñu xeet yii bu fa nekkoon ñun nga yaakaar ni réew yooyu dinañ dinañ mel ni ñu mel nii. réew tappale du ko defar mbirum njuuj njaaj du ko defar ay intérêt personnel du ko régler du ko defar il faut que ñu fàtte sunu ay mbiru bopp te jublu ci réew mi nañ fàtte suñuy mbiru bopp te jublu ci réew mi ndax réew mi wax dëgg yàlla bëgg nañ sunu ay njaboot bu ñëwee bëgg nañ sunu ay njaboot bu ñëwee mën a dund bëgg nañ sunu ay njaboot bu ñëwee mën a nekk nekkin bu mucc ayib mais réew moo xamante ni marabu ñoo téye askan wi di leen nacc di leen nol di leen toj tojal man di ko yor sa kaani xeeñ fu la neex nga toj ko fa fu la neex nga pàccal ko fa laxat jaxate ndaw sang koy tag nee ko ca famille euh, ba nga bokk léegi passeport diplomate moom lan mooy njariñam lan mooy njariñam léegi parce que njariñ ba mu amoon ak valeur ba mu amoon parce que diplomatie sénégalais dañoo waroon di ko jox ay nit ñoo xamante ni ci marché sénégalais la ñuy dox luy développer suñu réew di dem di signé ji ay accord ay accord yu ñëw ñu mën di bouger di génn di dem di xool li nga xam ni moom la réew mu manqué ñu dem di ko négocier di ko indi ci réew mi mais passeport diplôme boko joxe ben di ko xamanteni te course am la yor ben grand bubu mom bu ci demee bitim réew lan lay def dem nit ñi dagale alalam jox ko mu dugal ci poosam ñéku ñu jox sunu ay passeport diplôme jox ko nit ku ma ay birima di jox n'importe qui au nom de quoi ndax passeport diplôme mom légui mom. mbusu sunguf meew wala lan la passeport diplomate léegi su mbuusu sunguf meew la wala lan la ba tax ñu koy wanteer ñi nga xam ne amuñ ci ay mbokk ñu ngi leen fay 4 millions di leen defara passeport 3 millions 4 millions ñi nga xam ne seen ay jegeñaale lañ ñu leen koy defaral gratuitement ci yaama neex parce que sama mbokk nga ñu gis ay député yoo xam te nii di def ay faux certificat de mariage di jël ay bulletin de naissance yoo xam te ay doom yoo xam juruñu ko di leen defaral ay passeport diplomate mafia bii nii xew ci biir ensemble bi bëggu mu jëm kaw moo tax ñu ñuy divertir di ñu yónnee ay temps temps ñaaw ak Sénégal ay tànkam lu nañ loolu war nañ ko ginnaaw ñu ñu indi lu ne ba tey ñu ñu indil ay ay ay tëj ay compte bancaire de médias ak ay yooyu intéressé wuñ ñu liñ bëgg mooy mbirum passeport yi ñu liggéeyante ko teg ko ci fi ñu ko war a teg. procureur de la rue mo auto séjour parce que dem bay auto séjour ci ay xexum bedd ko xamne ben chauffeur la joteel muy Alassane Diouf nga dem nan ay damay auto-saisiru yow ni ko xamne porte plainte wuñ ko defuñ ko dara kamu mu jot ko balna la dina xex mais balna la nga ne nañ ko def mandat euh, mandat dépôt nit ko doon wax ben nit ci ben auto nga yow ñu jox la ñaata rapport lañ tek ci sa ko table procureur ñaata rapport rapport alu Sall mi ngi sa kaw sa ko sa table rapport mon surfay mi ngi sa ko table rapport mambay ñaa mi ngi sa kaw table Cheikh Kanté mi ngi sa ko table Cheikh Omar an mi ngi sa ko table lolu boko ko ça fait des milliers de milliards alu sénégalais yi des milliers de milliards alalu sénégalais mo waroon a defar lu bari ci réew mi gay yap sénégalais yap go xamantani di fofo foofu buddum buddum xoma lan la ko meuna tuddé parce que budu won woon ñi may seetaan respect bi may leen jox tay di nga dégg lo xamantani parce que yap sénégalais yi wessou li quoi. wax nañ fi scandale 6000 milliards ben romané bu jóge fële ci àll ba ak Aliou Sall ak Macky Sall ñu sàcc su def seen ay dil sàcc suñu alal ñu xaar nga séjour ci lolu wala ñu ubbi ci blanquette nga tok fi nga tok faale wo Sénégalais gis nga mbirum passeport diplomate bu ngeen ni yaakaare ni di ngeen fi indi ben mbir ba Sénégalais won gili ginaaw non Sénégalais mënu ñu bay li muy jall parce que liñ jàppee député yii nii liñ leen tuumal flagrant grand ay tour dafa génn ay tour, lañ cité ne diw ak diw ñoo ma jaay passeport waxuñu may de dañ maa jaay passeport 4 millions 4 millions 500 3 millions. mais lii dafa leer segam ay nit dem nañ ba génn bañ jàpp leen teg leen loxo ñu ne diw ak diw ak diw ñoo ñuy jaay passeport yi ñoo leen doo indil ay nit ñu leen koy jaay 3 millions 4 millions mais ñii ñoo baadoole ñii ñoo xasaw yow na nga mën a nekk ci ensemble boo xam te ni liggéeyaloo ñu Sénégalais ñu sag weer ñu la fay 1 million 300 jox la oto di fay sa jabar bu fekkee jigéen ñuy fay jëkkëram te nekkuñu ensemble da nga ne woon rek ñu la fay 1 million 300 di fay sa jabar ñii ñu fay seen jëkkër nga jël chauffeur sa rakk wala si jëkkër ñu koy fayaat beneen saleer yéen amuleen leen loo leen fayee sénégalais amoo leen loo fayee sénégalais yi lu dul dil seen ginnaaw di dil seen kaw te li ci gën a garaaw passeport yi ñi koy jaay sa dundul ay sénégalais ay guinéen lañ ko jaay am na ay guinéen yi ñu jaay passeport yi parce que Condé boobu noonu ñuy tudd ci affaire yi moom invité woon nañu ko ci plateau yi fii muy toog di défendre Alpha Condé yor làmmiñam bu rëy mais Condé boobu moo doon indil gars yi ay client ñoo xamante ne duñu ay sénégalais mais comment se fait-il que nit koo xam ne nekkuloo senegale ñu jël suñu ay passeport diplomate réew di leen ko jox ñoom ñu génn bitim réew def ci ay tojange. léegi loolu tojaange yi def noonu ci turu Sénégal lañ koy defee tojaange yi def ci turu Sénégal lañ koy defee ñun ñu bëgg a bàyyi ñu xëy na ñoo ay dugg na fii génn na fee jaar na fee gis nga xoolal dañ ne la procureur sénégalais yi nañ taxaw temm les députés, yi nañ ay ndombal tank, dañ les parce que du député kese amna ministre ci il y a des ministres moo bëgguñu mbir mi jëm kaw député banno Bokk ils ci ensemble bi yépp dañuy jaay passeport diplomate a koy jaay nous bañ lu tudd nañ ci ñeenti nit ñaar lañ tuddoon ñu jekki-jekki ñeenti nit ñu jëm kaw ñu jéem a ñu jéem a fay mbir ma léegi jéem a fay mbir ma mooy ay ay ay ay ay journal sagaru journaliste ñu leen defloo ay sal boulot ñu toog fii di ñu jéem a fàttu gu dégg bëccëg gis nga journaliste yi dañ leen war a boycotté di jàpp sax télé Mali moo gën di déglu ñun si yenn journaliste yi di déglu télé Burkina Faso moo gën di déglu suñu yenn journalistes yi te ñooñu ñëpp xam nañ ni régime bi bu changé ñoom journalistes yooyu yëpp seen yenn médias dañ ko tëj ñenn dañ dem kaso. ay chef de média laay wax ñoom dinañ dem kaso suñu ay impôt ñu ngi sàcc réew mi Youssou Ndour sàcc la ci réew mi fayul réew mi ay impôt ay milliards mi ngi mu tëdd. ba pare Macky Sall di tubb suñu alal di ko jox Bougane Gueye Dany fayul su ay impo réew mi alalu réew mi di sàcc suñu alalu réew président di ko woo di ko jox suñu lu réew tamit di dolli il faut mu leer bu ñu fontoo bu ñu fowee sénégalais mais ñu sénégalais bu fekkee dañoo nangu ñu ñuy fowee dañuy fowee bu fekkee ñun ñoo nangu ñu ñuy fooyee ñun da ñoom dañuy fooyee parce que ñoom dañoo dañoo yaakaar ne sax ay ginaar lañu yor ay ginaar ba lu leen neex teg ñu yokku nañ seen ndox yokku nañ sunu ndox yokku nañ sunu dund ba pare li ci gën a yées mooy ndox mi ñu jox baaxul di gonfler facture yi di gonfler facture courant yi di gonfler facture ndox yi yamatuñ foofu yokku nañ dundu gi fii ak déwén xaaju senegal yëpp dañuy dee bu fekkee ni la ñuy continuer moom xaaju senegal yëpp dañuy faatu. pexe war na am te pexe xam nañ lan la ñun Macky Sall waruñ ko may muy dugg ak ñun sax deux mille vingt deux parce que lii mënatu la ne. ku ne Macky Sall hoo hee ñu ne ko kaay passeport diplôme noppil yéen sunu ay passeport diplôme yéen moom ngeen di neexale nit ñi pour ñu bañee wax seen ay scandale pour ñu bañ a yoole seen ay seen seen mbir yu bon yi ngeen def ci réew mi.

dañuy invité ay nit ci biir présidence léegi ay ay ay dimanche nit ñi war a tudd noppalu ay dimanche dimanche ñu jël say empreinte lundi mardi ñu indil sa passeport diplomate yow nga dem ni la demal fu la neex kenn xamul au nom de quoi la ñuy jële sunu su ay passeport diplomate diko ko wesaare ci mbedd mi ba Guinéen di ci am Mauritanien di ci am Burkinabé yi di ci am Nigérien yi di ci am passeport diplomate Sénégal la ñuy jël di ko wesaare ay étrangers yoo xam ne kenn xamul fu ñu kenn xamul sax dañoo toj dafa ay toj seen réew daw génn seen réew kenn xamul lan ñu ñëw Sénégal ñu jël suñu ay passeport diplomate jox leen ci lan lañ leen ko joxee 3 millions 500 ko yor ñu jox la passeport ku yor 4 millions jox la passeport diplomate li moy Sénégal li moy réew ndax ñun dañu wara tok ni ni nii te nit ñu melni ni ay Abdou mbaw nit ñu melni ay mustapha Niass mi nga xamni retraité na yag na tok di dund suñu deret ñun di lek alalu sénégalais mok njabotam ñu ñuy dund dund gu mucc ayib nit ñu bëgg dundu safara ñun ndax li daf dañ ko wara a continuer conseil constitutionnel ñu fekk ay pa yu màgge depuis kenn xamu banane ñu jël pa yu ñàkk jom tegg leen fa ñu def sal bulo lu makki sal bëgg a jox leen ñu jallal ko ñom biñ démé ba nga xamni ñom dé rek mo def seen dund nit ku liggéey ba retraité yow jaam yalla nga war a defi ta xamni yow sax dé jege na mais ñom li ñi gëna a dé di gëna a yalla di gëna a lu bon lu ñuy gën a jege dee di gën a jëm mag di gën a ñeme yàlla di gën a ñeme lu bon sunu dund gi yëpp yàq nañ ko sunu dund gi yëpp yàq nañ ko ci seen intérêt personnel kuñ ne réew mi am na pétrole ak gaz ñu ko exploité danga nga naan non non réew mi am na zircon bu ñuy exploité da nga naan non non ne réew mi am na fer am na or bu ñuy exploité non li kenn mënu ko gëm ci kaw suuf. li ñuy exploité réew mi ñu exploité loolu lépp ni ñi dañuy dee wax xiif ni ñi dañuy dee wax mar nit ñi dañuy feebar duñ faju ba tey jigéen ñi ci ay saret la ñuy wasin démb lañ ma tàggee benn sama benn xarit jabaram bu doon accoucher génn àdduna sama benn mbokk bu nekk fële jabaram da ko don expliquer quoi mu ne ko non sunu ben mbok dafa ki quoi don accoucher euh, game ndaw ci nako ndaw ci nako lol nana nan la jigen nana wara man accoucher di génn aduna di di de parce que médecine fu mu toll léegi jigéen buy mucc sax bu ko neexee metti du ko yek ñun ba tey fii accouchement ci rew mi mom danger la li lepp ñu war ko xex ñu nekk ci yu ñàkk fayda yu ñàkk solo guddeeg bëccëg ñu ñu indi ay Ouzin Keita ay Tange Tandian puuskatu puub yooyu ay birima toog di wax ñu koy partager di ko déglu yàlla nañu yàlla yërëm réew mi ne réew mii Sénégal mu réew mi spécial la ci àdduna bi Sénégal mu réew mi spécial la ci àdduna bi amul beneen réew bu mën a mel nii ci kaw suuf benn la benn kese moo fi nekk muy Sénégal parce que ñun li dundee nii amul benn réew boo xam ne ci kaw suuf mën nga ko dundee réew mu am su ressource bu ne Maroc bi nek suñu wet Maroc dañu imposé wu ci européen yi Maroc géej lañ am biñ amé amee exploiter souf ci débay tam tam Maroc gënu ñu bax souf ñu Sénégal ba marocains yi ñu ñëw fi sax di bëgg souf di bay Maroc gënu ñu bax géej. suñu geej ñu jël ko ñun jox ko européen yi ñu leen jël leen français yi ñëw di signer ay contrat ñun ba tey sénégalais signé wul de français yi ñoo jaay suñu geej jaay ko sino ay jaay ko union européenne ñom ñu koy ñoo ñun ñu tok né faax di xol di gënt di rêver Maroc seen transport dafa nek international seen ay auto dañuy dugg biir Europe di génn comme comme comme di dugg Sénégal di génn. seen ay camion noonu lay def Maroc yaakaar ngeen bu amoon ressource bi nekk suñu suuf nii Maroc yooyu bi nga ko amoon yaakaar ni adduna bi dañuy daw ñëw ci ñoom di di sukk ci seen kanam